salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahu wahaabu ya rasaqu ya maliki lifta wahab li wa suqlim kun ana alayhi ajilan ajilan bi bishi mahmadin hatta kama li ilaha kana yusun tu wa rahmin kun ya tawwa utib dirni samas kana lak sama wa ali wa bi musharikin musbun ajib hasan di muhammadin wa tawli fa fa fa bara sama ga muslim hasan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ak sëñ bi siyaar bu baax a baax laaj bi bi nga doon laaj ña laaj yi ña laaj yi laaj bi bi aju ci wërd bi wërdul maxuus noo ne ñu ci wuti woon maak isa géy loolu waral loola mooy ci naqdul adab yi wala naqdul nusuus noo ne mu feeñ woon ca France la jiitu la jiitu woon ci dix-huitième siècle nga xam ne naqdu nusuus yi wala sax la ko jiitu na naqdu nusuus yi ndax nusuus yi ba xam daal loolu ñu tuddee asakku dëkkat yi alxarnu sadis alxarnu sabi asar la ñu koy ñu koy wax naqdu naqdu nusuus wala naqdu dëkkat yi li nusuus xam ne mooy nusuus yi nga xam ne lañ jëlee woon ca seen maam ya doon ko seet ba xam ndax wér na nekk rawatina ko mel ne xamrus dañ koy wax ci ay ay ay mbind yëpp ñu ndax moo koy defam ndil ak kenn kenn maanaam téere boobu di Ixnaaul Adiim nusxa boobu nga xam ne moom la Isaa gi yor man mi yor ko nusxa boobu benn ah ba tuuti Saliou Faye yaakaar naa Saliou Faye benn doomi dongab suñu ma dem jub mu ko bindee mu ko bindee ba noonu mu ko bindee sama kanam la man mi bokk naa ci ñu war a xool ngir ngir ñu topp ko nga xamante ne téere bi daanaka amuñu amuñu xasile bi nu mu la gis ñu ko te waa ba it noonu la mel mu am ay yëf yu bari yoo xam ne xew na ci téere ba nga xamante ne nas maanaam léegi lam yaxda al kitaab li tamxiis an naqdi wala boog taxqiqu nusuus def ñu ko ci maanaam ba xam li li misaal tey ca ca alxaati alxaatim bi mooy seen nas boobu gi wax dëgg waate noonu la nas ba tarjumaan joojee ñu ñëw ca asaba saasina saasar saasina ilaxe say bi xasar wetu baak loolu ñëw ca waaye minum suñu tuwaa mi moom ma nga jax ñàkk a rob ca ixnaa ba du firi ne suñu labin jóob indil ko ca waaw ndax ndax ndax téere ba dañ ko saytuwut moom saytuwuñ ko day isaag yi waxtaan nañ ci yu mel noonu yeneen ak yeneen baree bari nga xam ne maanaam ci silaay yi ñu amaku si néew yooyu lu ci mbirum loo xam kooka daanaka daanaka kii su ma dem jëm moom ay téeréem wax dëgg yàlla dafa amut saytu waaw nattu la yàlla am ci ndono ya ni ko kër yëpp amee rek nag waaw loola ko moo taxoon waaye man ginnaaw bi si tubaab mi la yor mu ñëw ci noona am am na Alaaji Fallu Ñang moom si guddi ñu mos naa la wax ne man daal di damaa jot ne wedd bi suñ tubaab yont bi da koo jox maanaam mu siyàq ko mu ne ko mu indi lay lay woo asaba saasi nañ yooyu moom daa xam ne moom for daa jàpp ne for wedd bi moom min min wa den Cheikh Xadim ak it baax a tabiyit jooju xam ne dana ñëw ci xanaa maana tabiyit wala aaxir tabiyit boobu noonu ñoo ci ñëw ci xam ne naa nga xam ne kon day mel ne lu ñu parleeka kii la waaw loola loola loola moom ci xam-xam mas na ko mas na ca waxtaan ci xam-xam rek waaye waaye nag ginnaaw yooyu am na mbindum loo xam suñu tubaab mi te laaj nañ ko ca ne ko ndax ni koy jànge wërdu bi nii mu ne waaw noonu ñu ko noonu ñu ko joxe taami si ko jànge men xarit tànkiis xam ne amut lu ci kii amut lu ci wàññeeku lu ci loola aw xaat yooyee yegg ci ne ginnaaw yëf yaa ngoog te ñu tuddee taxqiqul manhaj yi su su su su su su su su su su su su su su tasawuf moom dafay aaja taxqiq suma taxqu xam ne lii wérdu bi kat baadi yëg araf yi benn manqué wu ci misaal xoolal ca farajan farajan jooje nekk nekk ca nekk ca xaatim bi farajan la wala faraxan xam nga photocopie bi dafa mel ne daa am luy ñu tomb waaye li ginnaaw bi bi ma laaj ko kooku ma ne suñu mbokk yi loo xam ne ko farajan li ak farajan an dañu mën a xool lii mën naa nekk mën naa nekk farajan lii mën naa nekk mën naa nekk bu dee farajan li mën naa nekk kon farajan la bu dee nag farajan an rek kay mën a nekk kon kon kon faraxat la waaye man damaa dem jëm ci loxo wii nii ak lu loxo ñi ma ci jot nañ ko xam nañ loxo ñu ñu ne farajan li mën naa nekk kon ma koy jàngee. farajan maanaam aw xaat yi aw xaat yi ginnaaw man Sëriñ Saliou moo jox sanad bi mooy Sëriñ Sëriñ Saliou moo moo ko ko jox man Sëriñ Saliou am naan nag ab ab sëriñ bu ne ma Sëriñ Saliou Sëriñ Muxtaar Jóob tafsir mu am masjidul jubal ci xaal yéen wax na ne bi ko Sëriñ Saliou di jox wér di maaxuus maaxuus moom nag akamal ba la ko jox nee na ko xanaa xanaa akamal ba la nee na ko sama maam ko joxoon muy sama lamiñ waaye kon maanaam bi Sëriñ Saliou wax ma ne waaw wax ne kat aw xaat yi day bari na waxtu yi day bari na waaye tusubaar moom tiis moom xam ne ko kon loolu kon seeni ni waxa léegi nag sëñ Saliou yu mu xaqiq la ci gëstu yi waaye it li fa ko soxlaa dëgg-dëgg man mooy mu xaqiq la mu xaqiq la ci tasawuf maanaam li li muy dund taqiq na ko dund na ko ba vérifié ko ba xam ne lii wér na kon xam ne kon ne kat waxtu yi kat bari na waaye nag ginnaaw ñi ne suba la ak ngoon ñi ne te sëñ ba moom la mu ci indi moom ci woo moom tubaar ak timis la moom mu lëngal loola ci ay gëstuum kon gëstu dund ko tajriba ko ba xam ne kon tusbaar la ak timis donte ne kon ci ci wax jam ji boo ko tawile da nga ci mën a déggee ni kat ba tey it ko def takkusaan ak ngoon it suba ak ngoon it baax na waaye nag la gën la gën al ajdaru wala enfant mooy mooy tusbaar ak takkusaan tusbaar ak timis ndax dégg nga li mu wax waxtu yi day bari na waaye. tusbaar moom activiste moomu moom loolu waxinam la waaw kon moom sanad bi mooy si man si Saliou waaw foofu laaj ci am waaw beneen laaj bi muy laaj ci li ngay laaj ci am murit ndax jëfin koy wér-dëwé rek di liggéey Sëñ Tuubaa yooyu ak na si ak na si tuwaay sama sëriñ doy na am nañ am nañ am na ñuy wax noonu suñu tuwaay moom andi na ko ci muñ moo xam kubara bi nee na tëbbu ci bu la ko laaj ko ko fi sëriñam jóge ndax mën naa mën naa toog noonu rek di tëbbu ca ku ko jëkk mu ne kooka mu ne mu ne al al istimdaadu bil xay asali min al istimdaadi bil mayit maanaam moom moom moom léegi gi moom léegi na na sa booxe nee na na ko wax xamatu dëgg-dëgg kon baat yooyu yëpp la mu ko dul waaye kon kon ma ne kat sukkandiku tëbbu ci ku istimdaat mooy tëbbu ak ruu ci ci ku fi nekkul loola yombul borom xima dëgg la moom noonu ma ko defee woon ci ci ci yonent bi alayhi salaam waaw loolu yombut ndax yonent bi sax yokku def si xarit ubat ma taaxu léegi fii ku li sa woon Cheikh Kamil bu ne nooy mel waaye yombut li gën a yomb mooy nga am ab sëriñ ba noppi nag di istimdaad min al awal waaw maanaam nga xam ne kon bu dee da ngaa fikkoon ab sëriñ bu sab sëriñ nelawee da ngay dem faaw nga wutal ab sëriñ loolu sax am sensation kii la yàlla naan ñi ñi nga xam ne dañuy dem dañuy jublu ci ab sëriñ bu nekk ba sàq xam ne léegi di dem ca bàmmeel ba bu ñu amee yitte dem wax ko am masala masala ruuxaaniya mu ne loolu nag am mën naa nekk waaye am na am na tuuti iskaal iskaal bi ci nekk jinne mën na faa nekk ca bàmmeel ba di di wax ak ñu waaw loolu kon wóorul kon daal li gën a wóor daal mooy xay bi gën a wóor loolu mooy ko amul sëriñ waaye ko xam ne mosul am sëriñ sëñ am na ku ñu ku ñu nekk li sëñ Fallu ku ku bàyyam ku seen bàyyam bàyyam ne ko demal ci jébbalu ji ndax waa kër sëñ sëñ Bàmba yi ñoo fi ëpp xewal ci ci barsax mu yaakaar ne gënt la ay yoon yoon nag mu daal di ñëw si sëñ Fallu sëñ Fallu ne ko dama bëgg jox ma tijaan yi sëñ Fallu jox ko tijaan yi mu ne mu ne ko mu ne ko lu may doon mu ne ko xanaa tijaan mu ne ko nag su ma bëggee doon nu may def mu ne ko xanaa joxe sa bopp mu ko bàyyi jëbbulu la jëbbulu léegi nga xam ne kon jëbbulu googu mu mu mu baa yaa ji ñu koy layal ca nit yu baa yoon nga jël di lay fa xëy di ci taarix yooyu xam ne salaam suy na san tiwut waaye dafa jël loxoom dagal ca am tekki tekki la yorob daal dina ma jaayanteel Ousmane Ali te la maanaam kon moom jëbuli lugi moom mënta ñàkk faaw nga sukk ne asam tunafisi suñ fàllu jaay na ne fekk suñ jali ku doon jëbulu laaj moo suñ jali suñ jali ne ko waxal baat yi wax waaw kon mooy jubala sama bopp àddina alaxira loolu kon moom loolu mooy aada yi yi nga xamante ne aada aada yoon wi boo seetee suñ tubaab ba mu woolee ba mu woolee suñ Fallu ak sama subaak suñ Masamba ak suñ Moroqi bu sa noonee ca ca ca yéen Jolof nga xam ne xisaba léegi nag nga ne gisoo ab sëriñ bu bu la doy waaw loolu nag ci ancien sa seli tontu na ci ne nekkat su dee ni af umu fekk laa day joo xam dafa doom na du ko réer ne ni nga xam ne noonu la koy noonu la koy yittewoo su ko su ko yittewoo dana dana gisañ ba waaw nga xam ne ten nekkoon foofu nag jëbbalu ji wut sëriñ boo xam ne dana la mën di jox ay tur yàlla maanaam noonu nga waxee ku lay mën a tërbiye waxee doonte ne man ngeen na soree ndax suñu tuwaa tërbiye moom tarbiya bil xaal wala bil maqaal wala bil askar boo demee ci xoqaan noonu mu ko séddalee dama jot naa ne fii jamono ji moom tarbiyatu bil askar moo gën a jooy waaw jël jël aw tur nag dox ca dem ginnaaw bi bi nga jokkoo xam ne connexion muy am loolu la ko borom Ibris Cheikh Cheikh Cheikh Ibris da baax da wax ne loolu mooy xaabili maa nit ki wax si jublu ci sëñ bi. xaabil yi gi dox seen diggante mooy ak cofeel sopp ko waaw waxoon na ko moom mu ngi waxoon nañ ko daal daal di kat li li li ci moom bu doon amoon na ak njëkk ñu ne xanaa sopp ko waaw moo tax nga xamante ne bu jëbbuloo so cofeel ga nag mooy buum gi moom la soo baax di baax di wax arabida bi dox diggante sëñ bi ak donga bi waaye kon moom faaw mu jëbbulu joxe boppam léegi nag bu joxe boppam nag ba noppam nag ngir dafa dafa bëgg a tërbiyewu nag sëñ boobee nag bu dee xam na dara ci tasawuf xam na ca dara man man koo jox connexion jox ko tur boo xamante ne bu ca nekkee di dox bu doxee ab diir tur boobu nga ko dee soppi di ko jox weneen mu xam ne nga xam ne traitement la waaw teree ka ba defal génnal loolu ñu tuddee al idxaalu wal ixraaj nga xam ne nga xam ne boo seetee tërbiye rek ci tënk mooy al al idxaalu wal ixraaj dugal la ci di génne la ci di dugal ci di génne la ci ci loolu kon mooy yoon wa kon moom faaw kon maanaam sëriñ moom mënut a ñàkk bu dee da bu dee da ngaa bëgg a doon murid dëgg xaw ma nag murid ordinaire xam ne da ngaa bëgg a bokk ci mbooloo mi rek wa salaatullahi wa salaamuhu alayna wa aleykum wala say muslimin